ak bokk yi fi nekk fokk ma sànni ci kàddu ndax maa mujj war a jël mujj jël kàddu waaye nag ay kiimaan yu bari dafay am te suñ maam ju baax ja ma jaar moom foo xam ne daane kii mën na ma jàpp ne man dong la fa jaaroon sëriñ Mbàkke Madina daf maa booleeg moom ci téere bu ñu waroon defar ñu koy tàggu dong ma war a dem France pour defari ko biñ ko tàggoo moom ci boppam moo jëlal mbir ya boppam yebal ma France ma dem ca ñaar yoon ba ñuy traduire téere ba ba ma ca bibliothèque ba ca loolu fekk lu ko jiitu itam moo ma may bourse ma jàngi bitim réew bi ma dellusee ñu bari jàpp nañ ne Samba Yàlla moo jël waaye moo woo Samba la ne ko Cheikh mii jëlal ma ko sama sëtë dafa mujj sax di ko soññi ba ne ko sa kilifa dana fi ñëw alxames bu fekkee mënoo ko nga wax ma ma wax ko kon mel na ne moom visionnaire la visionnaire mooy kuy gis lu ñëwagul fa mu tàmbalee woon dañu faa eggagul fa mu tàmbalee woon laa wax dañu faa eggagul ku gis naal bii mu naal fi tey lii kenn ku ne xam na Central Park ci biir New York dëkk bu ne dafa war a noyyi am fu mu noyyee tey li mu def fii njariñ li kenn xamul lu mu toll te e, dem naa fa itam mu ne ma wóolu naa la loo wax sëriñ Aliou rek maa ko wax ci lu baax loolu kooku boobu xër ak niru gi sëriñ Touba nekk sëriñ Touba foofu la nit mën a yem kon baax na ba baaxaale jamono baaxaale Sénégal ci jukko ci xel ci xalaat ci colin ci ni ñuy fonke sëriñ Touba kon sëriñ Sidi ñu ngi ñaan yàlla guddal soo fan sëriñ si de man mënuma koo fay mukk ci àddina ndax lu ma am moom la te fu ma toll yi maa ngi koy wax te maa ngi ciy sant yàlla ci moom kon sëñ Bas ñu ngi lay sant bu baax yow itam sëñ Bas euh, Abdou Khadir euh, bëggul ma wax ko xam naa bëggul wax dëgg yàlla damay tooñ kii kii def forage bi it buñ koy inauguré danaa ko tooñ waaye sëñ Bas mi ñuy jàppale ci biir te daf ma wax ne ma bu ko kenn wax mi ñuy jàppale bu baax sëñ Samat kadaalika moom itam noonu la ñu ñuy jàppale guddi ak bëccëg ak ci bokk yi kon nag ñaar ñi moom danaa leen tooñ tey wax loolu kon sëñ Sidi yàlla la fi yàlla yàggal lool nga yàgg fi ak njabootu Serigne Touba yi te sunu maam je yàlla yokk ko leer bi jaaxi saytu wu jot ñu ngi sant ñëpp kon man maay mu jël kàddu waaye bu fi toogee fokk ma wax loolu ma man koo seede ndax dafay mel ne ab leetar laa boo xam ne da koo xamoon def ko ci poste bi jàngaloo ma mbiri ndox ndax Modou May nga neel toog. bokk naa ci programme d'urgence de l'hydraulique bu Sénégal bu Abdou Diouf doon def quatre cent et quelques forages lañu gas ci Sénégal mosuma am benn samedi bu ma noppalu te loola ba mu ba mu may yóbbu foofa sëñ Saliou daa mel ne daa jot lettre ba ci post boobee muy postu Serigne Touba mu teg ñu fi ñu war a teg ba tax euh, luñ ci am ci xéewal rek ci ñoom la jóge ñu ngi sant ñëpp di gërëm عيني رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا إله إلا الله لا خروجي ما هي عيني رحمتي عيني رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا إله إلا الله لا خروجي ما هي عيني رحمتي أين رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا إله إلا خروج ما هي أين رحمتي أين رحمتي الحمد لله جزيل عين رحمته الحمد لله جزيل نعمته لا إله إلا الله لا خروج ما هي عين رحمته عين رحمته الحمد لله جزيل نعمته لا إله إلا الله لا خروج ما هي عين رحمته عين رحمته الحمد لله الله جزيل نعمة لا خروج ما هي عين رحمتي عين رحمتي الحمد لله جزيل نعمة لا خروج ما هي عين رحمتي عين رحمتي الحمد لله الذي لنعمته لا خروج ما هي عين رحمته